vous voulez dogo ngi dans une suñu vidéo vous abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment. mais moi parce que bàyyi la nga tënkal ñu ci wolof rek ñoo gi nga ñëw seet si sa naataango Ousmane Sonko. may may ma leen di gërëm di wax ne dama ñëw daje koo xam ne euh, ku ku dal la Ousmane Sonko waxtaan nañu weccoo nañu échangé nañu ñu ma gis ne euh, kii ma waxtaanal man ak moom ñoo bokk xalaat ñoo bokk yéene ci luy defar réew mi yéene boobu mu am donte euh, ñun ñëpp ay ndaw lañu waaye yéene yéeneem romb na. lu bari loo xam ne nit ñi ñu ngi koy xalaat kon man jàpp naa ne euh, ñëw bii ma ñëw fii lu jaadu la parce que ñoo bokk xalaat ñoo bokk yéene ñoo bokk ni ñuy doxale et ñoo bokk it gëm-gëm gi ñu am ci ni ñu war a soppee réew mi. buur rek dafa désolé <laughs> dafa boole ñaar dafa ñàkk kersa yaradi ko. déedéet. oui dafa du dem ci fen quoi parce que au moins dafa ñàkk kerse ba yaradi ko te boo ñàkk kersa tout est possible. lu tax nga wax non non non Bougane dafa ñàkk kersa yaradi ko ok d'accord euh, dem na ba mun a sonkoo moom dictature la ko bëggul ku ta mu ngi tàmbalee nekk dictature ci këram goo nga xam ne ku àndul ak moom da ngay tokk ci émission mu lay message pour mu lay wax loo war a wax. moom Bougane waaw. waaw di dinañ ñëw ci dinañ ci. est-ce que yaa ngi ku déggoo ak moom tey ci teleem wala jaaroo ci ligne am doo fa nekk. loolu loolu boo yoree réew nooy def nit ñi kon. loolu moo nekk Sen TV. dama la ne yow yow mi fi nekkoon da ngaa dund lu ñu mel. non man te Sen TV kenn njëkkuma fa. Sen TV ba mu nekk rajo musicale laa fa ñëw ah télé nag nit ki ba xaman xamante du topp diw fa ngeen jëm moo soriwul. Mhm. mu ngi tàmbalee nekk dictature ci këram koo nga xam ne day dicté nit ñi ay loi na xam li muy wax ci Sonko bi ci topp Sonko nee mais Oustaz. dama euh, da nga nekk nit koo xam-xam la ci ci dal. am retenu. waaye tey booy waxee nii ak ñàkk kersa ak yar ci ci ci Bougane dafay xaw a jaaxle lan lan moo waral xam nga nit ndab. Mhm. boo ci lekk ba caa nga yàq dañuy yëlëb sa loxo ne la jógal. na ngeen ko tuddee c'est assez assez. du ngeen ça suffit. doy na doy na ngeen baal man moom léegi ma dégg ñuy corriger ministre yi ci tubaab man damay am sa gàcce quoi man corriger wu ñu parce que dégguma séeréer. Mhm. corriger parce que dégguma wolof wala parfois ñu naan tubaab. Mhm. ñuy tubaab bi coloniser ba seen doq yi. Mhm. tubaab lan la ñu jëriñ france lu mu ñu jëriñ ñun. wax leen ma lan la ñu français jëriñ ñun yàq suñu doom yi lenn li ñu ci rëcc sax ñoo ñoo tane fii ñu créé ay francophonie fii pour seen langue bañ a dee. boo génnee fii dootoo ko déggati anglais arabe ngay dégg. daa ay dégg ñaa yàq na français def leen laa fu mu leen neex def la fu mu leen neex. Mhm. yow la làkk bu ma nàmpul nga ma ciy bëgg a rey non non complexe baaxul Babacar. Mhm. Euh, yaa ngi naan xamoon nañ ma daal ci dal laa nekk ba tey de. Mhm. Babacar damaa de. ci laa nekk parce que ay dëgg laay wax. non mais mais mais mooy boo naan dafa yara de ku ñàkk non ci loolu moo gën a tuuti ci li ma ko war a parce que baatu fen du ma ko yëkkati yóbbu ci moom. loolu moo gën a mën a tuuti ci li nekk sama dënn man ko génne ñàkk na kerse yaradiku na. lu ñàkk kersa gi ah ñàkk kersa gi moy lan ñàkk kersa xana du wax gis-gisam ci ci fi rewmi tollu toll non non buy wax parole li ngay génne diko ko jubal ci nit ñi dang koy xol yaa ah, c'est vrai que parfois mu mu mu bind rek euh dang koy lire ba paré moy lol dal mais ba ba kar amna ñom duñ ci nek sa di topati ñu ci topati yow ñaat fan nga tok fi ñew taxaw ci tu sonko nan dañ ko bëgg toroxal fi dañ ko bëgg éliminer adversaire bëgg éliminer ah man buñ ma joxoon Macky Sall bu ma fekkoon Macky Sall di xeex balaa may wax daal dama koy njëkk dóor yàtt ngay wane ba bañ Macky Sall kañ nga ko fi bëgg bay bañ Sonko ban xol nga yor sa xol kañ la soppeeku ba fi nga Macky nekkoon nga nekk fa ci six mois ci lan Babacar du ñu dugg ci détails mais dama ko bëgg wax ne di ci manière bu global mm-hmm. nee na Sonko day daw débat du ma ci sonn booy dinañ ko daggal parti boobu tegal ko débat Sonko yëpp ma bàyyi kook booy ok Sonko dëgg du rombi nopp fama toll woon ak Macky Sall foofu laa toll ak ñii te ñii duma leen may dara moom Ousmane Sonko bu yóbboo na xam ne lu mu ko jaral pour yàq réew mi parce que yàqul réew mi parce que dafa bëgg dafay yàq parce que dafa cuune dafay yàq parce que xamul day yàq parce que mënul day yàq parce que amul xam-xam pour li ñu bëgg ci réew mi mën ko matale lu mu ko jaral nak pour mu meuna yak yàq réew mi moom dana xamne dana ma ray wala ma ray ko mais réew mi dana defaru inshallah allahu rabbi donc ñu ngi inviter les forces vives que ñu bolé sen doole pour que élection yi ñu jëm ñu jox majorité opposition te yaakaar naa ne suñu campagne sax mën naa bañ a metti man de wax naa leen nee naa wut leen ay son yu bari rek yu yu bax yo xamne mom seigne Ngundu ak waajale sen son rek ngay tek mom moko wax réew bo beugé mu dox opposition bi ngay jox assemblée ñom ñi nguuru nga jox leen exécutif bu ko défé ñun ñi nek assemblée ñun opposition bi dinañ mëna contrôler l'action du gouvernement et li ma wóor moy bu ñu jëlee réew mi réew mi dana dox parce que nag dafa am ay nit ñoo xam ne ay nit ñu jar a bàyyi xel lañu ay nit ñu am parcours. quand je vois une Anta Babacar ngam mais ku wane preuve am la quand je vois un Thierno bokum mais ku am xam-xam la ku wane preuve am la quand je vois un euh, euh, euh tas Thierno Alassane Sall mais nit ku am probité morale extraordinaire. Là. Quand je vois un pape d'Ibril Fall, c'est un jeune qui a montré que Amoul Yoryore a le mérite de le Sénégal. Donc, il y a des jeunes qui sont là, qui sont une alternative crédible. Nous, nous, bu leen mag ñi nous bu leen mag ñi jàppale mën nañu defar réew moo tax nous, wax ne teg nañu pôle judiciaire financier d'accord ma woon ci CREI parce que CREI yi nañu ko tëggee baaxul waaye bi ñu teg demb man gis na ci ay magistrats yo xamné ken du leen def loo ñu def barke xaadimul mustafa gis na ci man ay magistrats yo xamné ken du leen def loo ñu def donc sama xel dal na ci ñooñu reddition des comptes oui ñi sàcc alalu réew mi nañu ko gokk te ñu fexe ñu bañ koo goqi parce que lu nit goqi amatul njariñ nañ fexe ñu génn xaalis bi ñi sàcc alalu réew mi nañu leen tëj ci kaso yi pour Sénégal mun a récupérer xaalisam waaye li may bañ rek mooy làq dóor doom doom làq doom dóor doom moo tax ñun ñu ne pôle financier bobu boobu danañu fa déposer ñetti plainte ñun danañ leen jox liguey parce que nag yéen xam ngeen ne coowal assemblée nationale bi yépp lenn dong lañ ci djublu won pour ñu bañati wax ci mbirum ONAS coowal assemblée nationale bi yépp xam ngeen ne lenn dong lañ ci djublu won pour coowal azer ñu bañ ci waxati.

vous régler. lay Vous <laughs> de vidéo vous fàtte abonner liker partager parce que ça nous aide vraiment.